nice léegi nag <laughs> fu ñu jëm. Abdourahmane Balde. la ñuy seesi kii ñuy woo moom mooy l'homme de l'année ca Kolda. waa Kolda ñoo ko publicité. moom ñoo ko wax Dura. Abdourahmane Balde Dura Dura. moom la waa Kolda publicité ne moom lañ bëgg mu nekk seen lom de l'année. di xale bu am jom boo xam ne wax dëgg yàlla def na fa lu kenn deful. maye fa ay gel masque. faj ordonnance def lu rëy. bokk nag ñun génération nag te di liggéeykat Youssou Ndour dafa ma woo benn jour ma Kouthia je suis content de changement bi ngay def hmm. indiwaat yeneen façon nit pour ñu xam leen pour wane ne politique bi changé nag hmm. visage ñu bees ñëw c'est très important hmm. moo tax man Baldé bii Doura man sama soppe la dama ko xam ndax nangu liggéeyam waa Kolda bu ñu ko publicité def ko la ne nag te moom ndax dana ko nangu du ko nangu woo ko Eh, jaaraama jërëjëf alhamdulilah macha allah. waa moo koy ñu am mbégte ak contentement bu baax a baax. di nuyu suñu xarit. waaw Abdourahmane Badji. di ko ziar bu baax baax a baax. wallay wallay wallay. Abdourahmane Badji da ngaa saf xorom. waaw waaw man dafa am li tax ma woo la mooy atum 2020 mi ngi jeex ñu dugg ci 2021. te ku ne xam ne ni dama dégg ñu dañ la fal homme de l'année. waaw 2020 mais yow dañ ni mais xam nga affaire homme de l'année defuma ko pour nekk ko. Hmm. c'est juste pour wane que les populations s'ils sont satisfaits de ce que nous faisons. Hmm. c'est parce que ils sont satisfaits de ce que nous faisons. Hmm. su ma ko defee keneen def ko. ñun dañuy dox ci social politique sociale. moom mouvement Kolda debout mooy fexe ba Kolda ci boppam du toog. parce que Kolda dañ ko war a yëkkati. Uh-huh. daal di koy def kon capital régionale. xale yi bañ a jël gaal gi. lépp loo xam ne jigéen soxla na ko bañ a def exode rural ñu taxaw ci jàppale leen. loolu mooy suñu ambition politique sociale. dajale mbooloo boobu nag jàppale leen ba ñu bañ taxaw di yalwaan. bañ a bañ a taxaw di agressé. regroupé jakartement na yi jàppale leen ci li nga xam ne moom mooy seen sécurité ak lépp mais loolu mooy suñu soxla donc bu xale yi bëggee nag ñoom ñëpp ne ne ñoom lañ def mën nañ def <laughs> dalale ah dama naan mën ko nekk keneen mën na na ko nekk mmh. l' essentiel c' est de œuvrer pour la réussite des populations de Ah, Abdourahmane kon def naa loolu leer na. waaw kon li nga liggéey boo tax ñu fan la om de mais boo noonu yàcc ni yasar kenn du la fal homme de l'année euh, sa xarit Alioune Mbaye mu lay nuyu Abdourahmane Baldé. waaw nee na mu lay baax a baax. Uh-huh. mais ñu lay wax euh, lan wax tey sa message tey à la tey jii ci tàggatoo bi. li may xamal daal mooy je lance un appel à tous les Koldoa képp kuy doomu Kolda ci biir ak ci diaspora bi Kolda ñoo ko moom buñ ko liggéeyee Thiès dana ñëwee Kolda ba waa doomu Thiès yi roy ci Kolda. bu buñ ko liggéeyee waa Kaolack danañu ñëwee Kolda ba doomu Kaolack yi defar Kaolack ñun ñoo mun a defar Kolda ak notre moyen et notre propre moyen pour aider les populations à rester dans la ville et travailler. ci agriculture ku ci mën dara jàppale leen ci ci côté mécanique ku ci mën dara former leen ci ñun ñu mën a am ay xale yoo xam ne dañ leen former à la base pour ñu jàppale les populations de Kolda e mi eh, salmi noon bandiraɓe haalpularen mbiɗa haale noon jukkorel jabarel daafa ñafade tamede kew jingue ɗo kew yitiri kolda hettide jawte kolda jawte kulen mbayi kulen mbayi kulen mbayi kulen mbayi Kolda e eh, jaarama jaarama jaarama jaarama jaarama jaarama mbokk yi am nañu mbégte ak contentement bu mag ànd ak yéen seen émission Kouthia